batiment bi nga xam ne euh, dafa daal daanu foofule ca Liberté booru xaar yàlla euh, jamono ji nag ñu ngi euh, toog di xaarandi bilan bi waaye kii di Xawa Mamadou Konaté moom nag moo ñu fa toogal ci subaak léegi Xawa Mamadou Konaté mu ngi ci buumu jokkoo bi Xawa ñu ngi lay nuyu. Xawa bu fekkee yaa ngi ñuy dégg ñu ngi lay nuyu. Euh, ci liberté ci ci wetu rond point bi ci diggante xaar yàlla ak euh, Derklé euh, fii nag li fi xew démb ci guddi daanaka la ci ji am ndaxte nee nañ gannaaw match Sénégal bu jeexee rek ci la bâtiment bi daanu di fàttali bâtiment bi nag R plus 3 la ñi fa nekkoon nag xamuñu seeni lim waaye ci gàttal daal ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi ñu jot a même bu fekkee nag amaguñu bilan définitif bi mën nañ jàpp ne jamono ji nag juróom benn lañ ci daal di génnee ñoo xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan laataa loolee nag démb ba jiyee ji jotee am nag am na ab liir ak benn soxna buñ fi jot a génnee ñooñu nag mucc nañ ñeneen nga xam ne nag jëlee nañ ci ay gaz gaz ñu seen lim tolloon ñoom itam jamono ji nag ñu nga ca am na ñoo xam ne ñu nga ca fële ca hôpital mais bilan bi daal ci ñi nga xam ne jot nañ ñàkk seen bakkan ci ci mën a jàppagum juróom benn la ñu toll loolu ci ginnaaw xibaar yi nga xam ne nag jot nañ ko fee taataan ndax ci suba ba ñu accès commandant bi sapeur pompier bi benn la ñu waxoon waaye foofu ba léegi nag loolu daal dinay débouler ba am na juróom ñeneen ñoo xamante ne nag génne nañ leen ci décompte yi ni ko waxee sànq dëgg la noonu la amee lii di sapeur pompier yi gendarme yi ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu protection civile ñoom ñëpp ñu ngi fi euh, daanaka camion yi bàyyi yi ñu wër ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci décombres yi maanaam ci bâtiment bi xool ndax dinañ ci mën a gis ñoo xamante ne euh, tudd nañu am déet lool daal mooy liiru camion yooyu ngay dégg ñoo xamante ne dañuy euh, tonni gravats yi ay puits ak lépp daal euh, mu nekk nag ay mag tukaay bu am solo yoo xamante ne nag jaaj ko fii mobiliser démb ci guddi ba tey ndaxte sapeur yi ñoom ba ci kàddu commandant bi ba yëpp yi amee booru une heure du matin la ci daal di àgg Euh, ci gàttal daal ba su fekkee ne euh, yaa ngi may dégg mën nañ jàpp ne muy ji mhm. boo xamante ne mën nañ koo jébbal ci téléspectateurs yi euh, mooy ñoo xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan muy ab bilan provisoire nag parce que ba tey xamaguñu ndax am déet am nañu des ci li nga xam ne mooy gravats yaa ngi xam ne moom la mhm. sapeur pompier yi nekk nii ak seen i jumtukaay yi jéem a am déet am ñoo xam ne nag ne am nañ ay gaaj gaaj nit nag Euh, euh, xawaa ndax mën nañu xam ci bâtiment bi euh, ñaata nit ñoo fa nekkoon bala gana balaa moo am boobu effondrement waaw loolu falaa jikkee Kumba parce que lim boobu noonu xam nga euh, dëkkuwaayu euh, Sénégal bi muy xaw a demee. Mhm. doo xam à peu près ñan ñoo fi dëkk mais je que am na ñu ne lu ëpp fanweer wala fanweer daanaka. Mhm. dëkkoon ñu woon ci kër gi mais bu ñu fàtte ne dafa am ñeneen ñoo xamante ne dañ ci raxoon. Mhm. doon seetaan doo mat ba mat bi jeexee nag am na ñu jot a dem ñu def ci kër gi ñu def ci kër gi daal di def mais ba tey Kumba ma ci am loo xamante ne wax nañ ma lim bi nga xam ne ñoo yeewoo ci kër gi wala ñoo dëkk ci kër gi. ndaxte fii ñii sax daanaka ci boor yi euh, koñ bi maa ngi fekk waa koñ bi am ñoo xam dañoo tëggee ndax gazon wu koñ bi ca foofu la dëkkoon dafa def ci def ci ñàkk ba kanam ndeysaan waaw fii ak koo xamante ne moom ci ci rue bi daanaka la doon jaayee moom tamit dafa def bokk na ñi nga xam ne ñàkk na seen bakkan ci ci boobu la jëyee kon wax la carrément ñun ñoo doon ñaata nit ñoo doon yeewoo kër gi day xaw a jafe beneen mhm. xibaar bu ma gisee soo ma ko mayee mhm. mooy que euh, kër gi ci ci xibaar yi ñu jot on nous a dit que ne borom borom kër gi dafa leen waxoon nañu génn. Mhm. ndax dafa nekkoon di réfectionné ndax kër gi dafa commencé woon di di di am ay ay ay anomalie ay jafe-jafe. Mhm. ndax gisoon nañ ci ay fissure ndax tàmbali woon na sax liggéey bi nga xamante ne dafa jëmoon ci réfection. Mhm. beneen ñu ne borom kër gi waxoon na leen ñu génn waa ñi dëkkoon ci kër gi dañoo bañ a génn beneen xibaar ñëwaat ne déedéet. kenn ci góor ci bu ñëw ci yeneen i xibaar yi sax naa ci dugg ci interview boobu moom ci kër gi la dëkk nee na musul jot xibaar ni borom kër gi santoon na leen génn ci kër gi kon loolu amul ce qui veut dire que borom kër gi ñoom ñoo ko dëkkoon mhm. te kër gi yàgg naa am ay ay ay ay ay ak ay yàqu-yàqu ndax borom kër gi sax euh, jàpp nañ ne liggéey yi mu sumboon ci kër gi moo waral kër gi màgg ba ndax nee nañ ci suuf daf ko commencé woon ay travaux jàpp nañ ne loolu moo affaiblir bâtiment bi ba tey di am am. xawaa euh, ndax boroom kër gi gis ngeen ko fa tey mu ngi fa wala euh, ba tey kenn amul ay nouvelles ci moom. si bien sûr mhm. ci ñi nga doon def recherche yi sax. wax mhm. euh, ci suba nii ba ñu àggsee ñu séen nañ ko fa mais jot ñoo àgg ci moom ba mën a ba mën a wax ak moom jot ñoo wax ak moom mais mu ngi fi woon fi woon Kumba. jërëjëf xawaa Xawa Mamadou konaate yaakaar naa ni leer na ñu lay bàyyi rek nga toppal ñu euh, xibaar yi mu di tiis wi nga xam ne askanub euh, Liberté 6 euh, daal di nañ koy yeewoo ci tënk rek jamono ji mën nañoo jàpp ne juróom-benn ci ay doomu aadama jot nañ ci ñàkk seenu seenub bakkan ak ñenn ñoo xamante ne ni am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti waaye ba tey nag ñi nga xam ne ñoo di takk der yeeg sapeur pompier yi ñoom ñëpp ñu ngi wëyal liggéey bi ngir xoolali ndax amul ñeneen ñi nga xam ne dinañuy des ci euh, boobule euh, effondrement euh, dinañ